alhamdulillahi alkarim silminan ala istiqaali bi furudin wa sunan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci ndigalul sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke moom sëriñ Saaliwu yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér alhaaji Daawuda Seck moom sëriñ Saaliwu moo amaan mbégte di delsi di santaat sëriñ Touba Xaadima Rasuul di jaarale cant googu ci buntam di sëriñ Saalihu Mbacke di ñaan sun borom dolli ko ngërëmul yàlla fa mu nekk waaye nag nee na di yeesalaat pas-pasam akuk jaayanteem ci loxoy Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke moom Serigne Saliou nee na di ko seereel ak cantam ak ngërëmam te di ko seereel mbooleem àdduna bépp di leen xamal na takk na ak laxasaayam fas yéene topp ci ginnaawam lépp loo xamante ne bii woote na ko mu wujj woote boobee ca def ci lépp loo xam ne mën na ko nee na nag ginnaaw bu mu santee mbooleem ñi moo àndaloon ñu ànd ak moom ci liggéeyu xelkoom ba ba mu àgg nee na mi ngi leen di tàllalaat loxo muy xarit muy soppe muy wëllëre ci liggéey bi nga xam ne Serigne Cheikh mi ngi koy woote waat te mu jëm ci ngóobum saañoo ma nekk ci tool yi Lagane Alaaji Daawuda Sekk nee na takkaat na ak laxasaayam de fas yéene ànd ak Serigne bi ci liggéey boobu waaye nag ñu bàyyi waale xel it ne liggéey boobu it ña ngi koy woote ci Daaru Salaam Maodo Murid kon nag Alaaji Daawuda nee na ku dib soppeem baa xaritam baa wëllëreem mi ngi lay tàllal loxo ci liggéeyub lagan bi di la tàllal loxo ci liggéeyub Daaru Salaam Maodo Mouride di ñaan nag képp koo xamante ne bi taxaw nga ci liggéey boobu nee na lépp loo wooteeti boo ko gëstoo da nga ko ca gis ndax moom amul lu dul Serigne Cheikh mu Serigne Saliou te lu mu woote fas na yéene wuji ci loola mi ngi sant ñëpp nag di leen gërëm di ñaanalaat Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke moom Serigne Saliou yàlla na ko fi suñu borom gën a yàggal te gën a dolli ak wéram waaye di ñaanal yëpp xéewal ak naataange wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu